ci jëm ci digitalisation attestation d'assurance automobile ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. yéenekaay Mohamed Mamadou Ndiaye. jërë ngeen jëf fa téeméeri fan yu njëkk yi jomaay ci bopp réew l'observateur xëy di yéenekaay bi Diomaye sans jour sans débat journal bi teg ci bind ne tolloguñu ci waxtu def bilan waaye ci waxtu seetlu li ñu seetlu ci Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ñu fal président de la République bu Sénégal ngoonuk ñaar fukki fan ñeent ci weer mars 2024 yéenekaay bi nañu dafa dekkal yaakaar ju bari ci askan wi gëm projet bi waaye seetlu gi L'Observateur ne nañu téeméeri fan ginnaaw bi projet bi bu doon wota la ne démarrage dafa yeex rawatina wute ci réew mi bokk ci ñoom Elimane Kane président bu Ligue Africa li mu gis ci wàllu bonne gouvernance ci régime bu yees bi fi nekk mooy vision bu leer amagu ci Amadou Demba Ndour secrétaire général bu SAMES di syndicat gu ñiy liggéey ci wàllu wér géram ak Mballo Dia njiital SUTSAS di génneelu syndicat ñu yëngu ci wàllu wér géram ñi ngi wax ci biir yéenekaay bi ne téeméeri fan yu njëkk régime bu bees bi santiri gu ñu ay coppite ci wàllu santé bi Siley te dolli ci jox kàddu gi Cheikh Diop moo jiite Synthèse FC Cheikh Diop nee na nguur gi yees gi fi nekk ñoo ngi xaar ci ñoom ñu jëfe yi ñu annoncé soleil national xëy di ñu annoncé yoon yu yees yi président national Bassirou Diomaye Faye xàll ngir politique ferroviaire bu jaar yoon ci réew mi maanaam mbiri saxaar gi ak raay bi raay yooyu ak la ca liggéey dugal ko ci ci koppar réew mi quotidien nee nañu njiit réew mi santaane nañu defal ko ci audit auditel aí IGE di inspection générale d'état libération mi ngi ñuy xibaar ne juk nañu ngir défi audit ci exonération fiscale yi am ci réew mi ay audit ci contrat minier yi ci réew mi ak koppar yi état bi du duggal ci ndimbal li muy baaxee këri tass xibaar yi ci réew mi ñu nan ko aide à la presse le témoignage ne ko yi IGE jublu romb nañu lool otan nañu lu ëpp juróom-ñaar fukki ministère ak agence ak fonds public yu nekk ci réew mi ngir lijjanti nañu doxé ak la fay xew témoigne tuddal ñu ci Air Sénégal tuddal ñu ci train express régional bi tuddal ñu ci fonds d'appui à l'édition tuddal ñu ci coupe du monde ba won ci Qatar tuddal ñu ci aide à la presse bi tuddal ñu ci APIX tuddal ñu ci petite building administratif assemblée nationale giitoo ak ñool-ñool ya fa am vox populi nee nañu ngir bañ mu jëm kanam moo tax am ay député yu bokk ci waa wàllu yu déposé ab proposition de loi ca taabali njiital assemblée nationale ngir ñu jooyndi rëq-rëq yi ñuy wax ne dafa am ci règlement intérieur assemblée bi journal bi dañu wax ne xalaat bi mi ngi tukkee ci député yi di Nafissatou Diallo Ibrahima Diop ak député Serigne Abo Mbacké Thiam Walf Quotidien nañu la teengoon ci assemblée nationale mu ngay assemblée nationale di xëy di ñu baaxee ndaje mu Abdou Mbow woote woon ci bureau ba ci assemblée nationale fa la réunion ba amee woon ña ko teewee woon source ne na ñooy président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar président groupe parlementaire bu Yewwi Askan Wi ak président groupe parlementaire bu Wallu ñu wàlli ci xët mu njëkk journal point actu mi xëy di ñu yeggee jaaxle gu maam li jaaxal ñu bari nee nañu mooy président de république Bassirou Diomaye Faye def démb yéenekaay yu bari xëy ko yeewoo mu di faatu Baba Jaw borom itok journal Le Quotidien bokk ci journal yi xëy di ñu ko tàgge ba boole ci di ñu wax lu bari ci ay jaar-jaaram moom Baba Jaw Walf Quotidien ak journal la Mandat bind ne jàmbaar ju ñu ràññee woon lool ci wàllu pétrole ci àdduna bi di Baba Jaw mu génn àdduna enquête dina kay nañu industrie ñàkk na capitaine am ku bari woon xam-xam boole woon maandu ak noppi moo dem ñu demaat ci L'Observateur ànd ak moom dem ca Simanti Balante xooli lu yéeme la fa pil bi benn village bu fa nekk ñu naan ko kolaan am na fa lu ëpp téeméeri nit yu fa amee intoxication alimentaire journal bi nañu dëj bu fa amoon ñu toggoon fa ay laax waa dëkk ba lekk ca laax yi laax yooye moo leen indil intoxication alimentaire ba ñu bari ci ñoom fa la ñu naroon a jaare dem labisina sumari.com Touba Darou Salam Caro Prestige ak association bi lëkkale assureur du Sénégal ci projet bi jëm ci digitalisation attestation d'assurance automobile ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi Mouhamed sant waa dëkk ba nga fàtte